ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp mbokk yi dañoo def benn taxaw seetlu ci sketch yi nga xam ne mi ngi daw fii ci senegal muy sketch yu bon yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu law fii ci senegal dana yàq li ëpp ci suñuy xale ba ca topp it mooy sketch bii di infidèle nga xam ne dafay doog a commencé. gis nañ façon mbonte yiñ ci joué ci biir sketch yi ñu indi ci ñaari point yu ndaw yoo xam ne bëgg nañ ñu def ci ay jàngat ba ci topp it ñu ngi woon ñi nga xam ne kuréelu sàmm jikko yi pour ñu taxaw ci lii bépp télévision bu ko teg ñu ñu def la ñu teg la ay daan ba ci topp it mooy sketch bii ñu fexe nuñu ko bloqué ba du jàll ndax gis nañ ne bu jàllee li mu yàq ci xale yi lu bari bari bari bari lay doon ndax dañu cee jël ñaari point yu ndaw rek muy point yi ñu leen di bëgg wan nga xam ne ñoom li ñuy gëmloo nit ñi mooy léegi lu baax daal amatul njariñ def lu bon ba génn ci te it ñun ñi nga xam ne ñoo war a wax bu ñu waxul ëllëg yow man xiyaam mën nañoo am ak layoog ñoom ci kanam sunu borom kon sketch bii nii muy sketch bu bon boo xamante ni yëf yu bon a bon a bon bon bon lañ ci joué ci biir sketch bi. bu ñu bàyyee mu jàll fii ci senegal dana indi mbonte gu bari xëy na am na yeneen yu jàll sax yoo xam ne nit ñi waxoon nañ ci lu ci mel ni waa Marodi TV nga xam ne ñoom moom lu bon rek la ñuy joué waaw ñoom jàpp nañ ne lu bon moo leen jàlle ba ñoom lu bon kese kese kese kese la ñuy joué daanaka amut seen théâtre benn boo xam ne danga ko seetaan ba mu jeex mu def benn jeexit ci lu baax lu dul lu bon lay def ci yow. ñu seetlu benn sketch boo xamante ni mu ngi tudd infidèle di sketch boo xamante ni gis nañ ne bu ñu seetaanee rek dina yàqu lu bare bare bare ci société bi dañ leen ci woon benn point ñaari point rek benn point bi muy waaj yi yow jaara mënoo nekk nit nga changé sa solin bi ngir yàlla nga def say mini yu baax jaara rafet nga man de su ma mënoon ñuulaat ñuulaat ndax mooy tendance kon yéen a ngi dégg lim koy wax mooy dindil sa muuraay bi te ba ci topp mooy ñu jël suñu tur yi sëriñ yi nga xamante ni tur yu baax la muy maam jaare ñu tuddee ko te tuddul maam jaare ñu jël ko ci théâtre bi tuddee ko maam jaara te xëy na sax moom moomu tudd maam jaara muuru ki ak kii naan ko dindil sa muuraay gi ñoom ñëpp a yem dafa am benn message mu ñuy bëgg a jàllale rek mooy tax ñu defee noonu message bi mooy lan mooy ñu gëmloo sénégalais yi jigéen ñi nga xamante ni xaw nañoo tegu ci lu baax ñu gëmloo leen ne muuru daal amut njariñ li am njariñ mooy nga dem def lu bon jagatu ba am sa xaalis loolu moo am njariñ ba noppit jël suñu tur yi yu ñu gën a fonk fii ci senegal di leen ko tuddee kon loolu maa ngi woo képp koo xamante ci sa ànd sàmm jikko yi la bokk wala képp koo xamante ne ni donte ñaari nit wala benn nit mi ngi lay suivre nga wax ci ba ñu boleke sketch boobu wala bu ñu ko mënta boleke ñu xool nu ñuy def ndax gis nañ ñi sax ñi leen di financé ci seen ginnaaw amut daanaka ñi leen di financé amut ay jullit ñëpp ay yéefar yu bon lañ yoo xamante ni génn leen ci islam rek leen ñor. ginnaaw xëy na ñoom ko defal seen bopp ñu awale ko ci biir sénégalais yi seeni moroomu sénégalais bu ñu ko gisee dañ naan ginnaaw li ab sénégalais ñoo koy def kon ñun bu ñu ko defee du doon dara kon maa ngi ñaan képp koo xamante nii benn nit sax wala ñaari nit mi ngi lay siifuru nga wax ci xam ne lii sketch bu bon la te lii mooy li gën a ndaw ci seeni point te bu génnee dina yàq lu bare bare bare ci suñuy xale ba ci topp it muy point bii lañ leen di wanaat mi ngi nii. dama bëgg su fekkee yow. liñ ma daan jox mënatoo ma ko jox nga wax ma. ça xam nga bu baax fu may waxee depuis combien de temps ma. gis ngeen point bi wax ju bon jim ciy wax te jamono ca ginnaaw ku la waxoon sénégalais danañ dem ba ñemee def lii di ko génne doo ko gëm. kon képp koo xamantee nii yor nga ak njaboot nga jiim leen a yar ci islaam ndax xëy na sax jamono ji mucc yombul waaye nga yar leen te li ñuy wax rek mooy sketch bi sketch bu bon la boo xam ne ñi koy joué ñëpp kenn daanaka xamu ci araf kenn euh, xamu ci araf woo mën a jaamoo sunu borom kon ñoom li leen ñor rek mooy àddina ak xaalis moo leen ñor kon ñi nga xamante ni nii ñoom la fi yàlla dénk islam bi ñu wax ci ñu wax ci ñu wax ci ndax sketch bi gis nañ ni bu jàllee mën naa indi mont yu bare bare bari bari ci Sénégal kon képp koo xam seetaan nga vidéo bi ñu ngi lay ñaan nga partagé ko ba ñoom sax bu ñu ci mën mënee jot ñu jot ci ñu xam ne ay mbonte yu bon nañuy suyee te ëllëg yow ma xëyaam danañ tase ak borom kon lii ak xaalis jëru ko képp koo xam ne sa doom dugg na ci yenn sketch yii na nga ci jiima génne ndax lii lu bona bona bona bon la amul njariñ tey amul njariñ ëllëg wax yu bon ak jëf ju bon ci seen biir rek lañuy ñuy ñoom sax boo xoolee dafay mel ni yi ñuy joué tubaab yi sax euh, jomm nañ koo joué am na ci yenn tubaab yoo xam jomm nañ koo joué kon mbonte gii nii ñu ngi ñaan képp koo xamante ni jot na ci na ko partagé partagé ko ba ñoom ñu gis ko walla ñu bàyyi seen mbonte gii ñuy def kon ñi ngi leen di ñaan képp koo xamante ni sax benn nit wala ñaar nit ñi ngi lay si ko nga wax ci ndax lii mbonte mënu ko weesu te bu ñu bàyyee mu jàll dina doon loo xamante ni du baax ci ñun du baax ci suñuy xale du baax ci suñuy doom yi ñuy indi ëllëg kon jërë ngeen